salaamaaleykum waa Leuz TV damay nuyoo waat ndaxte damay waaj a tëj ki may tëjal mu ngi nii taxaw muy ndaanaan di sunu doyen di suñu lépp moom dama ko naan mu jéewoo puso bi ba pare puso bi réer macha allah mu ngi ci aar bi di bay waaram gëmul dara lu dul théâtre léytul ci loo ko woo lu dul ci théâtre rek safu ko macha allah aar la gëm moo nekk ci deretam moom lay dund ba nga xam ni nii ñi mu àndal ak ñi mu boot ñëpp di seen président looloo def ci seen xel looloo def ci seen bopp àndandoog ñoom nag dem ba bitim réew fële ca États-Unis ca Italie ca Milan ñu dem liggéey benn trophée waaw dañuy dem États-Unis bu nu jigee Italie États-Unis la ñuy dem jëli trophée ba indi ko dëgg neexul loolu lépp war naa mën a nekk tout est possible pour comédien yi mu dem ànd ak ñoom xareek ñoom benn pièce loolu lépp nag ma naar naar yaa ngi moom moo ñuy leeralal fi mu demoon ak lam fa wuti woon ak diiran ban la ko liggéey ba indi trophée bu tol noonu jox ñu ko ñun comédien yi tonto Leyti nuyu nan daara ziar nan la nuyu la ñaanal la sa carrière yàlla na mujj ci ay prix international euh, dan lay ñaanal ndax am nga yar dan lay ñaanal ndax euh, li nu gis ci yow rek lañ mun a wax mooy sa yar li nu gis ci yow mooy sa bëgg tamit li ngay def gis nañ tamit li nga nettali ci sa jaar-jaar fi nga jaar ak tayaat tey gëm gëm sa bopp tey moo la yóbbu te mën na la yóbbu fu ko raw ndax war na noo dépassé fu nuy jaayantee danoo war a waxante ay jëf-jëf moo lay tax nga tëdd sa ruq ne war man encouragé nañ ma war naa yokk kon avant tout dañ lay ñaanal di la wax ne sa taxawaay ci bis bi rek wane na ko yaa ngi ñëw ànd ak Leuz TV def interview ci comédien yëpp kon yaa ci linga nekk yaa ngi koy fësal yaa ngi koy dooleel su la neexoon dem ca mbër ya bu la neexoon dem ca football ba Sénégal a gagné keroog waaye da nga ne dew ma ci benn reportage fii ci samay nawle laa ñëw yal na la yàlla yokk yal na la yàlla yokk. lu dagg morom ma lay fekke leeti faal fii laay ñëw ndaxte fii lépp fii la ba pare pikin laa dëkk te ki ñi gagné tur bi gagné muy Arko Pikine Arko Pikine la tamay doomu Pikine tonton Leyti Fall gannaaw ban la nuyoo ñu di la laaj euh, nit ñi ñëw la ñuy njëkk a wax sax ci nit ñi la wuy si dooleel si la ci sa trophée bi nga am nan nga ko dundee ak trophée bi nga ñamal ñu tuuti rek ci na leen nga liggéey ba war a indi trophée bu mel nii. waaw euh, Daaro lii prix international la dañu def benn création man ak Mandiaye man Ndiaye dañu xamante bu yàgg ay at mu nekk itali man ma nekk Sénégal ñu xamante xamante xamante ba benn bis Pape na ma layti man ma laa jege gis li ngay def yow da ngay dégg Sida mi ngi financé nga bind théâtre dem ne leen aw ma lu ma wàccee ci tali bi théâtre laa am financé leen ma ma wax ci théâtre ma gis la ngay def lii di def lii mu ne ma sa CV ci théâtre dangay wuti projet pour le théâtre waa léegi kon pourquoi pas yow munoo dem lëkkaloog ma Ndiaye ngeen liggéey Pape Fall fexe synergie bi am ndeysaan ñu daje ma indi ko aar ko bi ma ko indee aar ko ne ko fii laa am nag parce que fii laa nekk premier pièce bi ma ko moo njëkk a wan naax saay dafa ñibbi këram woo ma ne ma dama laa sentir ci sama beneen pièce ci rôle bi ngay def nii ma ne ko ah mu ne ma dama am pièce bu mel ni bi ngay def dama laa santir ci rôle principal bi ma njaay li may wax am na seede de ma ne ko da ñëw aar ko tey seetaan ñu tey noo def création tey man rek ma joge ar ko bokk soo ko defee maa keneen ma dem mais su dee man kese du ma dem arko ko xam nañ ko mu ñëw ar ko taxaw wax ko moom na waa arko dama wax layti pour ñu ànd ci sama benn sélection mu ne ma ma yaa ma fi indi ba pare jël ma man day mel ni man nga bëggoon a jël boole maag góor wala benn jigéen ñaar jóge ar ko pikin donc loolu nekk lu lu lu waa lu lu marqué donc ànd boobu mooy dox ba ñu créer benn pièce de théâtre tuddee ko opéra lamb yóbbu ko Ravenna festival yóbbu ko Torino joué ko sept ville pièce bi def tournée parce que avant ñu fiy jógee dañu sonnoon ci contact yi da ngay bind festival wax ak festival bi prise en charge yi vingt comédiens donc comme ñun amoon nañ benn festival bu wóor ne moom dinañu jël en charge ñu bind yeneen festival ñafe ko ñafe ko ñafe ko ba yàlla def set festival tegu six ak boobu muy set ñu def tournée boobu ñibbi si Sénégal biñ ñibbisee am benn théâtre bu tudd Ravenant joué nañ fa bu tudd euh, euh, bu tudd Albé ñun joué nañ fa bi ñu fa joué ñoom ñu gis ko daan naa seen pièce de théâtre bi bëgg nañ ko contacté waat ñu Sénégal nañu dañu am compétition d'ailleurs sax Mandiaye mës na fi joué kon bëgg nañ yéen ngeen ñëw bokk ci compétition bi donc yàlla def ñu dem bokk ci compétition bi mu nekk dix 18 pays compétition bi 10 mois la fukki weer janvier la ba novembre donc no 12 novembre bii la la la 10 no 7 euh, novembre lañ pare délibéré le 8 novembre man ñu yónnee ma billet le 9 pour ma ñëw la 10 jël si trophée bi donc ñu proposé waa ñu pour ñu def excès donc mu nekk nag coupe du monde théâtre parce que tey dëkk ya fa nekkoon dafa bari da ngay joué tey keneen joué suba du ngeen gisante sax da ngeen di déggante ak yooyu donc mu nekk affaire bu metti woon mais yàlla defal ñu biñ ñu woowee nañu da ngeen a jël ndam bi. betuma parce que liggéey nañ ko nga ànd ak fukki xale ak juróom-ñett ak ñaari staff muy vingt personnes ngeen dem fu tol noonu mu metti trop critère théâtre bi rek moo njëkk a metti mooy boo lekkee mango ci biir orange wala pomme maanaam lekk bi sàqar mi bi wala a topp ci scène bi critère théâtre booboo njëkk a metti ndox mi sax dañuy conseiller par bouteille doo ci seen bi ndax gis nga tubaab ni mu fonkee plateau donc critères yi dama ne woon xale yi duñ ko adapté dafa metti ñun dinañ ñu daaneel ndax critères yi moo metti mais yàlla dimbali ñu ñu dem fa xale yi dem fa def jom def fulla def fayda wane ngor yàlla def nag lépp sotti yàlla def lépp nag sotti ñu am fa ndam muy ndamu képp kuy comédien kuy comédien rek ndam bi sa ndam la. tax comédien yëpp àndandoo ñëw wuy si la gis nga ni feesee fii dellu macha allah képp kuy comédien rek yënga ci sa bopp dan ni lu dagg morom ma lay fekki moo tax xar sax bu daggee morom xaram lay fekki comédien yi dagg fekki seen morom yi nangu trophée bi ni ñun ñoo ko moom loolu ban yëg-yëg nga ci am ak ban relation nga am ak yi ba layti yow koo woomu wuy la waa xam nga loolu dafa jaadu mooy ñun li ma wax sànq mooy ñun comédien yi dañu solidaire soo demee ci beneen concert gis musiciens yi buñ nuyoo toog ne seetlu nañ ko mais ñun suñu suñu coulisse boo ñëwee dañuy abalante yëre kii day jouer wàcc sol yëre kii jouer ci donc loolu dalay wan ne ñun ku ci am xol beneen nag mën na naturel ci yow mais ñun famille comédien yàlla moo ñu moo moo def ñun ñu ñu booloo mooy lu nit di def keneen lu looy def keneen di ko def da nga koy sentir donc relation yooyu c'est des relation humaines parce que koo bokkal métier sa nawle la da ko war a fonk da ko war a respecter parce que fonk ko respecté ko sa bopp nga fonk sa bopp nga respecté tey ku ku bokkul ci théâtre soo ñëwee fii ma mës a toog sa kër ne la mañoon nii wala daaro nii la mel tey boo fi ñëwee di nga ma yedd di nga ne ndekete man bu ma toogee leneen donc kon dañoo war di waxante yu baax di defante lu baax bañ a iñaanan parce que iñaan moom bul sonn gis nga ku ànd ak nit soxore ko wala nga wor ko ren ba déwén yàlla wan la ko kon ñun ànd bi ñuy ànd dëgg la ci ñun bi dalee ànd yàgg na bi ñu dalee xamante yàgg na bi ñu dalee séq ay mbir yàgg na mais yàlla moo dogal euh, ñu nekk ñoo xam ne vraiment ku am dara rek da koy na sa morom donc c'est le monde du du théâtre moom la yàlla bindee noonu parce que ku soxor du def théâtre te ndaanaan dëgg du soxor dégg nga Leyti Fall nee na ndaanaan dëgg du soxor ku soxor du def théâtre tonton Leyti ñu lay remercier di la ñaanal yàlla trophée bi nekk ay trophée trophée trophée ay ndami ndami ndam yàgg waa Arko Pikine euh, bi nag bëgg naa koo gis bëgg naa nga won ma trophée bi waa Leuz TV dañoo bëgg a xool trophée bi waaw ah, mu mel ni gis ngeen ko trophée baa ngi nii ah trophée bi looy la waa trophée bi looy la def gis nga looy len ñu indil trophée te xam ngeen ni ku ne xam ni bëtu looy moom day xool fu sori. waaw vision bu sori a ah, man damaa dégg man déggaraa laay sangoo yow <laughs> yàlla moo dogal ma jël bëri ko déggaraan tek ko sama kër di ko sangoo lool Sénégal yëpp xam nañ ko looy lan ñu jox looy am gis-gis bu sori kon ñun suñu gis-gis yemul ci trophée bi yeneeni i lay di ngay incha allah allahuma amin yàlla na ko yàlla def ndax daaro waxoon naa ne ku gëm sa bopp rek yàlla mën na la fekk ci li ngay def euh, musuma dem naa kaan ànd ak Youssou Ndour ci tapis rouge bi kaan 2012 ñu nominé ma fa taxul ma feete ko ma dem Carthage 2013 boo xoolee internet ma yor trophée bi ci kaw Carthage bu Tunisie taxul ma feete ko ma dem Maroc jël fa meilleur 17 comédien lañ doon xool ma nekk meilleur rôle comédien masculin trophée yooyu yëpp ñëw na ar ko trophée yëpp dama ko indi damay jóge aéroport def direct ar ko musuma feete mais bii nag moomu ma ko comédien yee ko moom moo tax ñu feete <laughs> trophée bi moom ko comédien yi la ko njëkkalee looloo tax mu feete ko yàgg naa indi ay trophée bi mooy ñeent xaw ma juróom xaw ma juróom yàlla na yokk ba mu nekk ay téeméeri trophée mën nga ko ndax say euh, macha allah ñi nga yilif muy xale yi nga xam ne ñoo nekk ci arko bi ñoom ñoo la bëgg ñoom sànq dañ doon xaaj fee di nangu micro bi naan ma layti dina am lu raw lii secret boobu laa xamoon lan la ba xale yëpp ñoo la gëm macha allah muy arko Pikine ñoom ñëpp la doyloo jiital ay nit dafa métti ñi dañuy bëgg ñiy bañ la ñuy ñàkk laa xale yëpp la gëm te loolu yaa ko liggéey aar rek moo la ñor ñu lay ñaanal ñun ñoom dañ laa bëgg ñun man damaa bokk ci ñi la bëgg bokk nga bokk samay soppe bokk ñi may daanee loolu yàlla def na ko foo nekk dinaa fa ne foo ma woo ma wuyu la ma ci góobee gar ko ndax ragal a day xañe wërsëg man mi maa ko wax bon ni mi ne ma ala ba dégg na ma ni ala ba moo ma daan reetaan loo tey maa ko reetaan bi nga ma jama ruqee nga ma la jàpp moo ruqee dégg